Mesdames et messieurs, bonjour. Sud Quotidien se penche aujourd'hui sur le foncier, un domaine qui est miné par la corruption. Et il faut savoir avec nos confrères que la corruption dans le foncier est favorisée par plusieurs facteurs. Nos confrères euh, citent l'environnement juridique qui est inadéquat parce qu'il contient beaucoup d'anatomisme. Cela ressort d'une étude de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et le cabinet consortium pour la recherche économique lois qui sont dépassées par l'évolution sociale, des réformes qui ne sont jamais appliquées et des sanctions pénales faibles, non dissuasives, qui favorisent donc la corruption dans le foncier. Et les réalisateurs de ce projet soutiennent que quand on met en place un régime juridique dans un a complètement de voir dans le système juridique des de la loi 1976 euh, sur à quelques années de l'acte 1 sur la décentralisation, le professeur Abdoulaye Dieye, qui fait partie donc de ceux qui ont réalisé cette étude, trouve que de 1976, c'est quand il n'y avait que la commune comme collectivité locale. Et depuis lors, il faut noter qu'une évolution a eu lieu avec l'érection de nouvelles régions et d'autres qui ont été supprimées et il conclut

reprises, les alertes ont été données par les autorités de la protection civile et municipale. 112 bâtiments menacent ruine à la Médina, nous informent nos confrères de Besbi le jour. Parlons politique à présent et tout d'abord signalons avec Daoul Chow, le biétiste Direct New, que le meilleur des acteurs politiques est celui qui provoque l'événement. Et c'est ce qu'a sans doute compris Victorine Dey qui a accepté de débattre avec le redoutable Guy Marius Sagna en posant des conditions surréalistes euh, selon nos confrères de Direct News. Nos confrères tirent d'ailleurs leur chapeau au secrétaire d'État au logement et mairesse de Niaguis qui a débattu avec Guy Marius euh, Sagna et cela, nous disent nos confrères, la met en haute estime au sein de l'opinion. Pour Direct News, Victorine Day peut en toute humilité tenir la dragée haute à n'importe quelle dame au sein de l'APR. Toujours en politique, dans le quotidien LAS, nos la

On aura tout vu à quelques heures de ce scrutin, car nos confrères du journal Réumi Quotidien notent que désormais Mary Teuw Niane à voter Yewwi Askan Wi, Nittu à un vote sanction contre Benno Nos confrères du journal L'Observateur, eux, ont noté beaucoup de bizarreries du scrutin de dimanche prochain. Nos confrères reviennent tout d'abord euh, sur le système de vote qui défavorise certaines coalitions et permettent à d'autres euh, d'obtenir 100% des voix. Hier, plus de 4000 jeunes ont rallié le monument de la Renaissance africaine à Ouakam pour suivre et bénéficier des services offerts par la plateforme Otundawi. Selon nos confrères de Tribune qui nous en parlent, cette plateforme a été créée pour appuyer et accompagner les services de l'État en matière de promotion de la jeunesse et cette plateforme de jeunes intervient dans la prise en charge de leurs différentes préoccupations dont l'enrôlement, personnes du troisième âge. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous informent que le président Macky a reçu une forte délégation des associations de retraités affiliées à l'IPRES venues des 14 régions du Sénégal. Au cours de cette rencontre, il leur a fait savoir sa volonté d'étendre aux veuves et aux retraités bénéficiaires de la pension minimale de la hausse des pensions de récemment accordée aux allocataires de l'institution. Une annonce bien accueillie par les très bonne lecture asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm tey ji culikaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci wàllu suuf rawatina nag njuuj njaaj gu métti gi nga xam ne uh, moom moo ci am suñu natango yi ñu ngi ñëwaat ci wàllu gi ni mel ginnaaw ba mu amee benn jàngat goo xam ne waa OFNAC di office national de lutte contre la fraude la corruption lëkkaloo ci ak CRES di consortium uh, pour la recherche économique et sociale ndax dinañu koy def jëmale ko ci guerre bi nga xam ne suuf ku ci mel ni professeur Abdoulaye Dieye bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon amal jàngat googu moom daal di dinay gis ne lii waral na guerre ba léegi di way di am ci wàllu suuf moom mooy ne am na yenn ci ay loi yoo xam ne dañu ko voté bu yàgg-yàgg te ba léegi kenn indiwu ci ay yeesal wala bokk niñ ko waroon a toppee toppeewuñu ko ni ni mel moom moomu di professeur Abdoulaye Dieye di gis ne bu ñu jëlee loi le domaine national bi nga xam ne euh, ci atum 1964 euh, la ñu ko daal di adopté boobu fekk na ne nag ay commune dong de moom moo am fii ci biir réew mi maanaam daal acte 3 de la la décentralisation dëggalaguñ ko fi woon mu bëri ay coppite yoo xam ne it daal dinañu koy indi wante coppite yooyu ba léegi kenn dëggalu ko nag eh, ci li nga xam ne de eh, moom mooy ci wàllu suuf loolu daal di tax nag ba njuuj njaaj yu métti la ñu ci wàll gi ni mel ab jéy amatina te Médina foofu nga xam ne moom mooy ca rue 39 angle 9 autolikaay bii di tribune moo ñuy xamal ne benn dal moom moo dal di wadd fekk mu amoon ay nit yoo xam ne ña fa woon mu am ñaar ñu si daal di ñàkk seen bakkan ak juróom yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu coolikaay bii di bés bi le jour tamit ma ngay ñëwaat ci ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken foofu nga xam ne moom mooy ca euh, Médina ci ab euh, kër goo xam ne xam ne nag taalibe ñoo nga fa woon coolikaay bii di bés bi le jour ne mbir bu tiis ñii nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon ci biir euh, kër googu rax ci dolli nag bâtiment yi nga xam ne dafay tàmbale di nërmelu ci atum 2019 ñu ngi ñuy xamal ne toll woon nañu ci téeméer yu tegal fukk ak ñaari bâtiment wàllu politique la ñuy jukki rawatina nag wàllu campagne électorale bi nga xam ne li ci des bëreetul culikaay bi di direct news di ñëwaat uh, ci ab débat bu neex bu am solo boo xam ne moom moo amoon ci diggante Victorine Ndeye moom mi nga xam ne nag moom mooy maire bu Niaguis nekk it uh, ka ñu jiital ci liste benn bokk yaakaar fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ziguinchor mi ngi doon jàkkarloo ak ki nga xam ne de moom mooy Guy Marius Sagna nekk tête de liste bu coalition Yewwi Askan Wi foofu nga xam ne it moom mooy ci diwaanu Ziguinchor direct news doxalin boobu nga xam ne moom la Victorine Ndeye daal di am ndaxte ba muy nangu jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna boobu fekk na ki nga xam ne moom mooy Aminata Touré moom bañ naa jàkkaarloo ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko loolu nag moom moo tax boo coolikaay bii di direct news gis nag ne ki nga xam ne de moom mooy Victorine Ndeye moom de siggil na nag soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi rawatina nag ñi nekk ci biir APR te it la mu gis moom mooy ne foofu nga xam ne it moom mooy ci biir APR léegi kay amul benn jigéen boo xam ne ne moom moo ko fa ëpp fit Alioune Ndoye moom mi nga xam ne nag moom mooy tête de bu coalition euh, benn bokk yaakaar fii ci biir Dakar moom it ma ngay wëyal li nga xam ne de euh, moom mooy am wanteew ci likaay bi di laas mi euh, moom na mu gisee ne na l'opposition bi di amalee nag li nga xam ne de moom mooy seen campagne koppar gu bëri gi nga xam ne nag lañ ciy dugal moom la mu gëm moom mooy ne am na ñu nekk ci ginnaaw di financer ñi nga xam ne ñoom ñooy l'opposition bi mu daal di joxoñ baaraamu tuuma kuréel yi nga xam ne dafa dafa ëmb ay góor jigéen kon campagne électorale bi mën nañu wax ne ñaari fan moom moo ci des autolikaay bi di le vrai journal ne it benn fan la ñu may ñi nga xam ne rek ñoom ñooy liste yi ngir ñu daal di xëcco goo xam ne sa mujjantal ga dinañ ci xam kan mooy gagné ci njeexteelu campagne boobu nag bëri na ay kàddu yoo xam ne daal dinay jip ci wàllu campagne électorale boobu autolikaay bii di critique tey jii mi ngi ci ñëwaat Vox Populi moom it di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne sax kii di Ousmane Sonko daal dina koy fësal Kolda ndaxte foofu Sonko daal dinay xamal ndaw yi nañu dem ca préfecture yi daal di jël li nga xam ne moom mooy seen carte d'identité su fekkente ne nag dem nañu ña fa nekk daal di lank carré ne duñ leen ko jox Sonko ma nga leen di soññ ngir ñu daal di dajji bunt yi bu ñu leen laajee na ndaw yi wax ne Sonko moom moo leen wax ñu def li ni mel ci campagne bi nga xam ne nag mi ngi waaj a jeex mu amit ay coppite yoo xam ne ñu ngi koy gis aujourd'hui bii di réew mi quotidien nañu léegi Mary Teuw Niane koo xam ne nag da nga askan wi nitu dëgg moom it daal di gis ne ab la ñu war a def jëmale ko ci waa Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui kay bii di l'observateur di ñëwaat tamit ci wàllu élection yi nga xam ne dinañu ko amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bu atum 2022 wante l'Obs ñëw na ci yenn ci ay mbir yoo xam ne daal mi ngi ci biir élection bi wante ñu bëri comprendre ñu ko maanaam benn système boo xam ne dafay baax ci yenn ci ay coalition du baax ci ñeneen yi ndaxte am na yenn ci ay coalition yoo xam ne bu ñu góorgóorloo bu ñu amulee sax cinquante pour cent ci baat mun nañu am majorité ca assemblée nationale démb lu weesu ñeenti junni ndaw daje woon nañoo ca monument de la renaissance africaine nekk ca Wakam ngir war a mën a bokk ci service yi nga xam ne plateforme bii di ëttu ndaw yi moom moo leen ko baaxee plateforme boobu culikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne dañ ko fee taxawal ngir gunge groupe Sénégal ci lépp loo xam ne daf koo bëgg a def jëmale ko ci wàllu ndaw yi loolu sax moom moo tax ba démb ndaw yu bëri daal di leen jébbal ay bons de mën dawal oto ñeneen yi ñu daal di leen jox tamit ay formation yoo xam ne moom mooy tax ñu xam naka la ñuy mën a fexe ba am ay financement ëttu ndaw yi ñii di ndaw yi ñoom ñoo ko fi taxawal te it ndaw yi lay jëriñ bu ñu jógee ci ndaw yi dañuy dem ba ci mag ñi ñooñu coolikaay bi de la Soleil moo ñuy xamal ne ñi bokk ci association affiliée à l'IPRES jógee ci fukk ak ñeenti diwaan yi nekk fii ci biir Sénégal njiitu réewum Sénégal mi ngi leen doon dalal le Soleil di ñu xamal ne ci ndaje boobu la leen Macky Sall daal di xamle ne yokkute gi nga xam ne moom moo am ci wàllu pension retraite yi dinañ ko gën a yaatal ba retraité yëpp war cee mën a am wante it ñii nga xam ne ñoom ñooy soxna yi nga xam ne seen borom kër dafa génn àddina lii moo nekkoon mboxtulikat yi li gën a fës ci biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jaam